aaya ba daanu na équipe bii di Bayern na jeexal na coow li ndax fi mu toll ni daanaka sanction yi nga xam ni waroon na koo teg ci ñanco ma Mané ñanco national sanction yëpp dabbar ñi na ko benn match la boo xam ni dana ko toog ci samedi bi beneen boo xam ne daanaka mooy bi nga xam ne nag moo ci xaw a gën a métti muy daanaka jël nañ ci ab salaire am lu toll ci benn semaine séngëm boo xam ni gone ak sénégalais gi du ko laal maanaam lu toll ci trois cent vingt neuf Euh, millions yu tegal juróomi téeméeri junni euh, ci niñ ko mën a waxee ci wolof ndax du ñëpp a mën a wax euh, li nga xam ni moo nekk nombre bi doon ci euro waaye bu ñu leen ko ñee ci xaalisub Sénégal bi nga xam ni daanaka bu koy mayee fi la koy mayee di ko jënd ceeb ak diwlin mi ngi toll ci trois cent vingt-neuf millions cinq maanaam ñetti téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti millions yoo xam ni tegal na téeméeri junni loolee lanu dagg ci ab salaire am moom mii di gone ak sénégalais gi danañ ko nag ci équipe bi bu Bayern de di dajeek équipe bi la nga xam ni Euh, moo nekk Manchester City euh, fële ci Allemagne bu ngeen gisee loolu ndax coow li lu mu bari bari euh, gone gi yaakaar nañ ko ci match boo xam ne Manchester City war na koo dajeeg Bayern te Bayern am taxawaay boo xam ne moom la ca war a am maanaam Bayern dafa war a mën a defub remontada remontada boobee nag coow lii mënut a tax mu def ko beneen bi mooy ñi nga xam ne moom la équipe bi yor du kenn koo xam ne mën na cee dóor Manchester City ñetti bal ci dara ba jëm ñeenti bal loolee ñancoo lañ ci yaakaar moo tax daanaka coow li li li mënta gudd kon ñancoo ne ñancoo national ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax te it ñaanal ko ànd ak moom ci li nga xam ne mooy xat-xat yi nga xam ne nekk na ci tam moom gone gi mu mos a jural Sénégal lépp ci ay tëféex yoo xam ni Sénégal bëgg na ko équipe nationale am mu mos tee taxaw kon cant ak ngërëm a ñeel na ko bu mu ragal dara fu man mën di demit bu wàññeekoo dina gis nit ku ñuul koo xam ni mel nip këriñ ne ci wetam di ko ñaanal te it jàpp ni ñoom ñoo ñee daanaka ñoo bokk li nu doon beneen bi mooy toute l'équipe Aladji Malick TV ñu ngi ci ginnaaw Sadio Mané ah, ci li nga xam ne mooy xat-xat yi nga xam ne nekk na ko kon jële ngeen jëf ci abonné yi nga xam ne yéen a ngi koy def cant ak ngërëm ñeen leen ba ci kanam kanam